ko siyaare bu baax ci bis bii. nee na mi ngi koy siyaare bu baax ci bis bii. nga xam ne suñ bàjjan moo ko doon def. nga xam ne nee na suñ bàjjan moo ko daan woote. ñi ñi moom it mu ñëw. moom it mu ñëw. nee na moom it mu ñëw. di ko dundal. di ko dundal. di ko soxna si rek daan daa dundale. ni ko soxna si daan dundale rek. waaw ñu ngi ko ci siyaare bu baax a baax a baax. nee na kon ñu ngi la ci siyaare bu baax a baax a baax. di siyaare mboolem njabootu soxna si. di siyaare ne mboolem njabootu soxna si. Ah, di ci bëgg bu baax mi ngi ciy bëgg bu baax ndax soxna si bi mu ko daa def. ndax bi ko soxna may daan def. ma eh, waajuram. liggéeyal waajuram. feeñal liggéeyub lislaam bi. feeñal liggéeyub lislaam bi. ci sëñ bi. ci moo ci doon itteem. moom rek moo ci doonoon ak bokk yëpp. ak bokk yëpp. daje fi. ndax weer wii. ndax weer wii. day weeru jokk bokk. day weeru jokk ak bokk. di woo weeru dundal. di weeru dundal. mooy saxru sillati wal infaq. muy saxru sillati wal infaq. waaw. wa birri. wa saxrul birri. di weeru njekk. di weeru njekk. def njekk. def njekk. mu yooyu yëpp nag. nee na yooyu nag. ñu bëgg ko cee màng. ñu bëgg ko cee màng. looloo ci gënoon a si. loolu moo ci gënoon itteel soxna si. moo tax njabootu Sëriñ Tuubaa daa daje. moo ne lii rek. da doy na doy na ma bis. doy na kon nag. loolu mooy lii rek. loolu mooy ñu ngi leen ci siyaare bu baax. nee na njaboot gépp. di ñaan jëf jiñ ci jëf. di ñaan jëf ji ci jëf. mu daa mu mu doon lu mu doon liggéeyal sëriñ bi. mu doon lu sëriñ bi. yàlla na ko yàlla nangu. yàlla ko yàlla nangu. waaw ah, te yàgg. te mu yàgg. ñu yàgg ko ñu yàgg cee liggéeyal sëriñ Touba. ñu yàgg cee liggéeyal sëriñ Touba. te li ngeen def lépp. te liñ ciy def lépp. doon lu dëppook doon lu dëppoog eh, ak ak ni ko sëñ bëgge ak ni ko sëñ bi bëgge ñu ngi leen di sant yéen ñëpp nee na ngi sant ñun ñëpp di sa ci mboolem ñu fi teew ñëpp di bég ci mboolem ñu fi teew ñëpp ak ñi fekk ñëpp fekk ñëpp ndax weeru koor ndax day lu màgg ci lislaam di loo xam ne. di xam ne. daanaka manees naa wax ne. mooy eh, ci la alxuraan wàcc. alxuraan te alxuraan. mooy constitution bi jullit ñëpp. mooy constitution bi jullit mooy dustoor. mooy dustoor. ci jullit ci jullit waaw kon nag. kon nag. day mel ni mooy dafa mel ne. dafa mel ne. koor. koor laylatul xadar mooy mooy feetu mooy feetu juddu xeetu xeetu bi alayhi nag yàlla na yàlla nangu lépp kon nag yàlla yàlla nangu lépp te te fe koo fekke yàlla delloo ko ci noonu yàlla delloo siwaat ko ci noonu eh, te yiw yi koor làmboo yiw yi ko làmboon ak barke bi ak barke bi ak tereet bi mu doon ak tereet bi mu doon ci eh, ci ci ci ci ci jullit bu ne ci jullit bu ne la ca ne. ci lu baax. ci njëkkante ci lu baax. yàlla nañu ci yàlla may. yàlla nañu ci yàlla ñu bokk ci ëppale. ñu bokk ci ña ah, ci ëppale. ji Serigne Touba. ci dara ji Serigne Touba. taala wa taala wa barakaatu. jërëjëf soxna si ñu lay sant bu baax ci itte ji. waaw amiin. ne ñëpp maa sa nangu ñaan. amiin amiin jërë ngeen ni ñu nanguwaat ñaan amiin amiin waaw amiin jërëjëf amiin amiin jërëjëf ma waaw baax na ma fan yéen